tey euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy équipe de massification bu mouvement jëf dañ ñëwoon ci Mbour ci benn tournée bi nga xamante ne ñu ngi koy amal au niveau national euh, mouvement jëf ñu ñëpp xam nañu bi mu juddoo ak léegi yàggul ñeenti weer la def yàlla def ñi ci nekk ci ay membres macha allah doon lu takkoo takkoo takku ñu gis nag équipe de massification bi fu mu nekk nii dafa war a jóg ñu structuré waat li nga xamante ni moom mooy mouvement bi ndax préparer li nga xamante ni moom moo nekk ci sunu kanam ndax euh, mouvement jëf li mu andi dafa nek vision bo xamanteni ngir Sénégal la donc faw mu préparer ay ndawam gën a waxtaan ak ñom gën leena xamalante lan moy mouvement jëf tay lool mo taxone ñu tassé fi ci Mbour. tassé bi batay tey euh, boo xoolee li nga xamanteni moy mooy Sénégal ñun dañu gis ni ñi ci nekkoon ñëpp ñëpp souvent ñi dañu wax programme ñi naan le projet donc tay dañu ñëwoon surtout tay tëjoog suñu ndaw bo xolé ñi nekk ci biir fi ñëpp ngay gis mu ngi nekk ay jeunes yoo xamante ni ay ay coordonnateurs yoo xamante ñu ngi jóge dans les seize communes yi nga xamante ni ñoo composé Mbour ñoo ñëpp tase fii tey ci commune du Mbour bi pour euh, euh, formation de mise à niveau bi nga xam moom la amal gën leen a xamalantan lan mooy li nga xamante moom mooy vision wu jëf ba nga xamante ni liñ ci jublu mooy ku ci ne fii boo fi jógee ba mun a sa gox koo taxawal di nga mun def distinction wax ko lan mooy vision lan mooy programme pour nit ñi xam mouvement jëf li nga xamanteni mom la suñu leader andi moy Thionia dafa nekk vision bo xamanteni euh, pour ay génération génération té te gëm nañ ni lolu moy li nga xamanteni mom mo wara mëna défar Sénégal buñ joggé fi comme ni nga ko gissé coordinateur yi nga xamanteni ño ñoo nekk ci 16 départements yi ci Mbour yëpp ñom ño fi tassé buñ joggé fi ku ci né bo délo ci sa base Amna ay stratégie nak yo xamanteni ni nañ ko pour mën ko liggéey pour gëna yox massification bi mais fu mu ni dañuy yam rek ci li nga xamanteni mom moy Euh, partage de vision mouvement jëf bi donc loolu li ñu ci jublu mooy ku ci ne boo jógee fii tey boo demee sa sa gox nga jëm fa nekk nga xamante ni moom mooy coon ñaa nga moom mooy leaderu jëf te doo ci yem rek soo nekkee ñaa ba pare nga créer ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay Thionia parce que gëm nañu changement yu ndaw ndawaan yooyu moom mooy fexe moom mooy def li nga xamante ni mooy bu yàggee rek moom mooy indi changement bu mag a mag a mag